bis bi nga xam ne histoire dina ko jàpp. Ah, effectivement histoire dina ko jàpp lii nag day firndeel ne oyof teem euh, bëgg askan wi waaye tamit jege askan wi euh, ci acte nga xamante ne tey mu ngi koy posé donc tey day firndeel ne moom li nga xamante ne moom lañ ko fi yaakaaree moom la ko taaliba yi yaakaaree moom lay jëmmal dañ mun tax a ah, ku ko gis ku ko ziare loo ñu tax moom ba laa biram kon nag mu nekk ko xamante ne nag vraiment c'est un modèle boo xamante xamante ne yàgg boole euh, ñi nga xamante ne nekk na koo xamante ne tey du mu yegsee gis symbolique mi ngoog président de la république euh, teeru papaam teeru kilifaam teeru xaritam ngir nag ñu mën a ànd dem dagg li nga xam ne moom la ñuy wax euh, ruban bi mu di ruban symbolique sànq sax xam ngeen si kër ga fële ci résidence ba moom président de la république jëloon na caabi l'hôpital yi jébbal ko ki nga xam ne moo di xalifa général des mourides kon tey bi ci def rek mooy ndagg nag li ñuy wax ruban bi ci Ibrahima Doom te loolu nag président de la république def ci bëgg a ànd ak kilifaam mu di xalifa général des lii nag Sénégal li soxla euh, Sénégal dafa nekk euh, dëkk dëkku diine. te gis nga réew bu fekkee ne ay euh, ay ay ay taalibeem bu fekkee ne ñi nga xam dañoo féete suuf jox nañ cër yi kilifa yi rek kilifa yi xam li nga xamante ne moom la leen yàlla sas ñu tegu ci dëkk bi day yomb dundin bi day yomb tey sëñ Mountakha firndeel na ko tey gannaaw ba nga xamante ne malgré son âge ñëw na déplacé wu ak oyofam wone ne nga xamante ne tey moom la président def si fii man man maa ko ko gën a bëgg fuuf ndaxte jaamu yàlla yi la ko defal te moom nag jaamu yàlla yi moo ko fi tax a toog kon nag tànk yooyu lay firndeel ba tax na tey mu ñëw bokk ci xew bi tey mu ñëw wone cofeelam ak contentement bi nga xamante ne am na ko ci bi ñuy inauguré hôpital bu am solo bi. Mhm. sëñ Mountakha Mbacké xam nga Ibrahima dafa liggéey liggéey boo am solo ci mbas mi. ndax euh, gis nga ba ci kàddu yu mujj yi mu yëkkati fan yi woote gi mu woote ni bu ñuy dem ci màggal gi dañu jël matukaay yi yëpp ci wàllu mbas mi jàpp jëm ci wàllu masque yi jàpp jëm ci wàllu gel yi jàpp jëm ci wàllu distance woo na taalibe yi ni leen ku ciy ñëw ku nekk na nga jël matukaay yooyu wax na sax ci teeru bii ne soxlawul nit ñi di bare ndax dañu nekk ci jamonoy mbas mi loolu yëpp wu wone rek ne maa ngi dugal sama loxo ci xeex bi nga xam ne nit ñi ñu koy xeex ci wàllu wér-gu-yaram waaye lii ci wàllu hôpital day wone rek ne moom am na cofeel ci li nga xam ne am na fii ñu samp ko mu di hôpital bi te xam na njëriñu mbir mu mel nii ndax li ñuy wax naan dañ ci dugal fanweeri milliards ak juróom benn moom bu ci déplacé woo ñëw ko fii pour firndee rek nekkoon mënoon nañ ci sax lu ci lu ko ëpp ndax xam na lu ci wér gi yaramu doomi aadama xam na njugu wér gi yaramu doomi aadama xam na njugu lu mel ni l'hôpital bu mel ni ñu wax niveau national mu di national niveau 3. kon loolu tey bu ñëwee déplacé wu wax nga ko léegi ci atam ci calendrier chargé bi ah ci jaamu suñu borom bi ndax li ci ëpp ci tempsam ci loolu la koy jagleel ndax xam nga ñoom waxtu yu mel nii bu jotee rek dana fekk ñu daal di tëju lëlu ndax ka gis lool lool lool ndax seen lépp dañ ko jébbal suñu borom mm. kon tey su fekkee ne jaral na ko mu def jéego yi bu ko neexoon yem ca bañ ko joxee rek caabi ja foofu ca këram mm. waaye gis nga président dafa ne ko xaar ma maa ngi ñëw mm. yàggul tuuti mu ñëw fekk si ka ànd ak moom ci li nga xam ne moo di daggum riban bi Ibrahima ma bàyyi la seetaan li nga xam ne moo di daggum riban boobu le président de la République dafa yokk. moom laa ko kon même ministre bi loolu du jàll parce que dimanche bi dañ ko dafa traversé dimanche dafa traversé mënul dem. d' accord nee na dimanche moo tax mënul jàll. waaw doo koy tudd doo koy tudd doo koy tudd rek mu mën a filmé. mi ngoog. li nga wax paiement bi dagg na ñu nangu ñaan amin amin Mbacke amin Mbacke amin yaa rabbal alamina mi ngoog Ibrahima jumaa bi dagg na euh, ngeen mën ko gis en image ndax euh, yombul ndax euh, gis ngeen nit ni ñu ñëwee wuyu si li nga xam ne moo di xew-xew bi waaye RTS ci xarañam fexe na ba ci wàllu tiimale image yi ci li ñuy wax drone mu di jumtukaay yoo xarala yi ndax suñu xarit suñu rakk ti moom it euh, ñu koy nuyu di ko ziar fexe na ba ku ci nekk mën a barkeelu ci ñaan yooyu nga xam ne moom xalif général des mourides baaxee na ko mbooleem jullit yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp fii ci Touba ndax nag du fii ci Sénégal rek la ñuy toppee tey jii taalibe yi am nañu mbégte loolu dañuy toppee fépp ci àddina bi RTS 1 ngir mën a bokk ci xew-xew diine bi may fàttali itam nii nañu fas yéene ànd ak yéen gunge leen ba bis bu màgg ba mu di 18 safar Ibrahima mu ngi noonu gannaaw ruban bi nag plaque bi la ñuy dévoilé noonu président de la république ak ki nga xamante ne moo di le porte parole dévoilé nañ ko désormais euh, hôpital bi inauguré nañ ko ba noppi nag léegi nag tableau baa ngi nii mooy ki nga xamante ne moo fi teew di xalif général des mourides ak ki nga xamante ne moo di le président de la république Macky Sall daal di nañuy inauguré inauguré daal di nañuy euh, dagg ruban bi ba noppi dévoilé plaque bi léegi li des rek mooy daal di dugg ci biir hôpital bi. daal di xool yann comportement yi nga xamante ne ñooy les différente composante de de de l'hôpital bu ko defee li nga xamante ne moom la bëggoon tey mu ñëw teg ci bëtam xool li nga xamante ne moom la digoon loolu la santoon jawriñam di la ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr comme ni mu ko bëggee woon xool nax defee na ko noonu bu ko defee nag moom mu am satisfaction ci li nga xamante ne moom la doon xaar ci moom. Sëriñ Bass Abdou